jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ñun ci TV bismilla kon ci xibaar yi ñu ko président Macky Sall mi doon waat ci kanamu askan wi ni ki tey ca jam ñaajo ak it yu fekk baax fii ci Afrique ginnaaw bi ñu teewe woon boobule ndaje ak yenn ci ay invité yu fa dikkoon jàppale ne cérémonie de prestation de serment bobé kon président Macky Sall amal na ko ni ñu ko daan amalee ci kanamu conseil constitutionnel bi nga xam ne kon ñoom ñu war a teewee boobule waat président Macky Sall ngi nii Abdoulaye Timéra ak Aline devant Dieu. maa ngi waat ci kanamu yàlla dellu di waat ci kanamu askanu Sénégal ni dinaa fexe ba ngàlloo doxalinu njiitu réew ngir gën a jëmal Sénégal ca kanam dinaa teg sama gët ci mboolem matukaay yi nga xam ne chartum réew mi moo ko joxe ma fas yéene cee wëyal ngir lu jëmal réew mi kanam naka noone lépp lu ñeel defendre lu jëm ci lii di institution constitutionnelle yi dinaa ci doxal ni yoon santaane teg ci itam mboolem lu ma yoon may ngir ma fexe ba askan wi gën a moom seen bopp teg ci itam gën a boole Afrique mu yelloo naa ne dinaa ko liggéey ci ni ma ko yoon santé constitutionnel ba tey ci kàddu yi mu yëkkati moom président Macky Sall bokk na ci kon taxawaay gi nga xam ne nar na ko indi doon te xam na jafe-jafe gi yenn ci sénégalais di jànkonteel jëm ci wàllum dëkkuwaay loole moo tax mu xamle ne kon nguur gi dina ci xar tànk tubéyam dal di ci jokkook ñi nga xam ne ñoo njiital gox-goxaan yi su ko defee ñu mën a boole seen doole que ñii di association citoyenne yi ngir mën a fexe rek ba daal di taxawal ab programme boo xam ne kon day ñeel wàllum logement bu di dëkkuwaay ngir mën a fexe rek kon ba yenn ci sénégalais yi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ngir wàllum dëkkuwaay ñu mën koo am kon te du doon loo xam ne dina diis lool ci ñoom président Macky Sall ngi nii kàddu yooyee Abdoulaye Timéra la ko dénk Aline Samb ba tey ci caméra bi. les autorités. bu dama taxaw takku Loro talal loxo bépp kilifa yi nga xamantene bi ci gox ak ñi Nek ci yi rawatina kuréel yi nga xamantene bi dañuy taxaw rek ngir jëmmal képp ku nga xamantene bi da nga am ci mbim ngir mëna fexé ba li nga xamantene ne la yéné mudi walu di ñu di tabax lu ci juni logement ci at yi nga xamantene bi mom le Sénégal di deugmal manam sama mandat bi nga xamantene bi niki La tambali niki tay te amal ngir Senegal, ndax gis nañu ne li nga xamantene bi mom modi na lu jafé té nek na donc lu metti ci bép ki nga xamanténi bi borom kër nga rawatina nga nek kilifa ci lolu nak ma bëgg rek mu nek li nga xamanténi bi ñëpp ñëpp ci war jot te bu ko défé nag tamit anam yi ñu ko wara a jot du doon anam yi nga xamanténi bi da fay metti ci ñom lolu moy yéene bi nga xamanténi bi mom la jël ci at di ñëw ci Sénégal engage aussi les autorités territoriales mbébét boobee président Macky Sall ak ngornomaam am jëm kon ci wàll ñi lii di dëkkuwaay yi ginnaaw bi mu ko jibalee nii kàddu ñeel kon ne lii di logement bi jàpp leen ne njiital conseil départemental bu Goudiri nekk itam député ci assemblée nationale dafa jàpp ne kon programme boobee président Macky Sall wax yegsi na ci waxtoom ginnaaw rek ba nga xamee ne jamono ji am na sénégalais yu bëri yu jànkonteel jafe-jafe jëm ci wàllum dëkkuwaay donte nag moom président def na ci jéego ñetti jàpp ñeenti at a ngi ni si ginnaaw mu ñeel kon charte bi nga xam ne moo jëloon dogal ngir ñu daal di wàññi lii di luy as bi ginnaaw it ba yenn ci euh, askan di jànkonte ki jafe-jafe ndax seen loxo jotul seen ginnaaw ji moo soirée lay wuyoo ay kàddoom a ngi dénk na ko Abdoulaye Timéra ak Aline Samb Le président a, tout, a toujours, une, a toujours eu le souci de. de, de... njiitu réew mi saa su nekk mu ngi doon bàyyi xelam ci jafe-jafe bi askan wi di dundee ndax bu ñu xoolee ñett japp ñenti at ci ginnaw lu ni mel mo amone ci walum luyaas bi ñu gis jéego bi nga xamné ne def na ci mok ñi mu àndal wàññi nañu luyaas bi ginnaw it bi nga xamné ne mi mu ngi ci yonuk suqaliku te ñu bari ci askan wi seen loxo jotul seen ginnaw gis nañu ne tey am na ville yu ci mel ni ndakaaru boo fi dikkee ngir mën fee amub dëkkuwaay day jafe lool li ko waral moo di li ñuy laaj ci xaalis moo cher ba jéggi dayoo loole nag moo tax kon nguur gi daal di ci jëfu jéego ngir mën a fexe itam baskan mi mën cee gis seen bopp mu loi bi nga xam ne moom la indi woon mu ñeel pàcc boobee dafa daal am solo itam ñu xam Sénégal dafa am fu mu toll te président mu ngi dox ngir mën a fexe rek ba tabaxaat kon boo xoolee tey li mu xamle ci bi muy def prestation de serment mu di kon tabax ay logement sociaux lëkkaloo ngir askan wi kenn ku ci nekk mën a am dëkkuwaay loola itam lu am solo la moo di collectivité locale yi euh, su ko defee ñoom itam ñu mën ci am seen wàll indi ko ci bu baax a baax a baax ndax xam ngeen ne wax wàllum foncier léeg-léeg ak jafe-jafe yi am moo taxit il faut ñu indi ci ab taxawaay waaye itam ñi nga xam ne kon ñoo jiite gox-goxaan yi faaw itam ñu gën leen jàppale bu baax a baax ñoom it ñu mën cee dugal seen loxo nguur gi it dina am taxawaay bu mu indi mu ñeel lii di collectivité locale yi faaw mu dugal leen loxo bu baax su ko defee ñoom itam dinañu daal di gën a mën a dugal seen loxo ngir jàppale askan wi. des collectivités par les collectivités territoriales. moom président Macky Sall bi mu waatee ba noppi kon discours bi mu yëkkati jëm ci ay diggé mu di promesse yoo xam ne jagaleel na ko askanuk Sénégal. loole nag kon jamono ji ñu bëri ci askanu ko Sénégal ñu ngi xaar ndax président Macky sal dina sàmmanteek dige yooyee mu jël eh, ginnaaw rek ñoom ba ñuy des di am yaakaar ne kon jombut ci juróomi at yi faaw mu góorgóorlu ba mbooleem loo xam ne dige na ko rek mu daal di ko ci def ngir Sénégal gën a mën a jëm ca kanam ci fànn boobee dañuy teewlu ñenn ci askan wi jël seeni kàddu dénk ko suñu stagiaire di Caroline Badiane. di remercier peuple Sénégal yëpp gis nañu boo xam ne nit koo xam ne. Euh, nekk na président bu mature président bu bu bu conscient si liñ ko dénk liñ koy ñaan nag mooy mu bañ a def xàjj ak seen boole ñëpp ñi ko votel ak ñi ko votelul woon ñëpp discours bi nag nekk na discours boo xam ne am nañ ci yaakaar am na ñu yaakaar ni kii li mu bëgg a def dina ko jàllale fi fi mu bëgg a egg. comme li bàyyi euh, sëñ Abdou Lahad waxoon rek. nit ki moom su waxee da ngay jàpp ci wax jooju. léegi nag soo demee ba jimmi jamono wax jooju mu la waxoon méngoo ak jëf ji nga xam ne nit nit la. loolee kon mbokk yi moo jeexal pàcc bu njëkk bi ci xibaar yi ñaareelu pàcc wàllum bitim réew lay doon ñu ànd ci ak lay Timéra. xibaaru bitim réew wa dañ koy dooree ci Mali lii di opération Barkhane daal di am taxawaay ci diwaanu Gourma gannaaw ba ñu nemmeeku ay jàmmarloo yu tar ba téeméeri. pël daal di ñàkk seen bakken ñu jàpp ne rek ñaari fukki fan ak ñett ci weeru mars ci Mali ba léegi

terroristes, yi fële wu lay ñaay te tamit mu nekk ab diwaan bi nga bi dafa am solo ndax ci yoonu Bamako gi la nekk bu ñu jógee foofu nag dañuy tabbi fa nga Algérie ñu jàpp ne rek ay manifesté yu bëri la ñu nemmeeku ci lidi euh, présidence bu république euh, algérienne bi gannaaw ba mu khatim ab communiqué bàyyeekoo ci agence de presse officielle bu Algérie di APS di xamal ne rek di Abdel Aziz Bouteflika dina tekki ndombol tankam, ci li nga xamantene bi euh, ngi euh, tambali ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru avril yu japp ne rek boobu tekki ndombol tànk boobule nek na lu nga xamantene bi algérien yu bari rafetlu nañ ko waye fas yéene ñu jëm fofu ndax dañuy xamal ne rek ne yoy yep ay naxé mbay la seen walu bop dara Bofumuyem fu mu yem neex ci Funga nak ñu japp ne rek fep fu nga jaar ci yoon wi da ngay gis ay bataxal yi nga xamantene bi mom lañu ñu euh, fësal rawatina li nga xamantene bi mom moy walu euh, su réseaux sociaux yi ci xarala yu bees yi ñu ndax ko ci Turquie ñu japp ne rek li di candidat bu jé politique bi mom mo dal di jël raw gàddu bi ci euh, élection municipale yoyu le ci Istanbul gana ba mu jamarlo ak candidat bi nga xamantene bi dafa faré ak njiitu réew mi di Tayyip Recep Erdogan yi le résultat nak nekk na lu nga xamante ne bi ñoo ngi ko doon xaarandi bu baax a baax fanweeri fan ak benn ci weeru mars fi nga xamante ne bi moom moo di euh, Turquie ñu jàpp ne rek l'AKP di partie bi nga xamante ne bi moom moo boot kii di njiitu réew ba di euh, Recep Tayyip Erdogan ñàkk na fu nga xamante ne moom moo di Istanbul ndax li nga xamante ne bi moom moo di candidat opposition bi nag moom di Ikrem İmamoğlu moom moo daal di jël raw gàddu gi ci euh, nu mu gën a gaawee ginnaaw xibaaru bitim réew yi wàllum tàggat yaram la ñuy utali ji ànd ci ak Yankoba Gueye xibaaru tàggat yaram yi ñu ngi koy ubbee ak équipe nationale beach soccer maanaam fubalu suuf géej ñu ngi si tiis ak nakar Abdou Karim Samba mu nekkoon seen gardien de but ñàkk na bakkanam ginnaaw benn malaise bu mu amoon ba mu paree entraînement am moom nag Abdou Karim bokkoon na si ñu demoon mondial 2017 sa Bahamas Liverpool xamle na njëgu Sadio maane te ñaar téeméer ak fanweeri million si euro la ko bëgg jaayee Sadio Mané nga xam ne Real bëgg nañ ko te naroon nañ si yónnee benn offre bu jegewul lu Liverpool laaj si njëg boobu Sadio Mané moom nar a nekk joueur bu gën a cher ci histoire football après Neymar ren mu ngi ci yoonu am ab njaay bu takku naqat équipe bu Arsenal bi wane na bëgg-bëggam ngir xëcc Ismaïla Sarr te pare nañ fay ci juróom fukki millions ci euro attaquant ren bi nag fukk ak juróom ñaari millions la ko ren jëndee woon te Ismaïla Sarr ba saison bi tàmbalee bi léegi am na fukki but. xibaaru tàggat yaram yooyu kon mbokk yi moo jeexal xibaar yi ci Yegle TV mbégte mu yaatu la amoon ngir faram-fàcceel leen ko ni mu koy defee ci caméra Matar Dia tàkk Almami Fati jaajëfal bu baax équipe rédactionnelle bi jàpp ci liggéey bi itam ba mu gën a yemb ci ni ngeen ko bëggee chef d'édition Abdoulaye Timéra réalisation Seynabou Ndour ma leen di jox dig daje ëllëg ndem soob na yàlla lu ko wees wit mbokk yi ma leen di ñaanal jàmm ak programme mu Yegle TV jërë ngeen jëf kon ci teewlu bi